man mooy sama candidat. 2024 xam nga may dappale baaxul. Mhm. ñu baree baree bari comme ni nga ko waxee sànq. ñu bëri duñ jël position non nañ xaar le premier jàll ñu xool affaire yi nu muy demee. Mhm. bu dee Ousmane dina bokk man léegi dinaa la jox dinaa la wax man sama position bu dee nag moo jeexee jërë may mu a man yooyu nekkuma ci. te muy dëgg man sama amitié ak sama xaritoo ak Ousmane Sonko dama ko assumé ca fajar déggoo ma de dawal ko safaak marwa ba ñu jot local ak député mu dawal ma safaak marwa moo tax fu ma ko gis sigi fu ma gis sigi mm. dama am genn grand frère bu tudd Moussa Aydara dafa gaañu 2019 amet gaaw waaw déglu ma rek ko yàlla yërëm la si mm. kooku moo doon ànd ak Ousmane Sonko Ziguinchor magu Ousmane Sonko bu tudd Vieux Sonko di ànd ak suma beneen mag bu tudd Mamadou Sarr lii moo ma liyee ak waa ak Ousmane Sonko ñu bari dañ foog ne fii lañu la ñu bokkee. yal na ànd bi yal na ànd bi Malick Gakou nag. Mhm. man tooguma fi di xaar ay verdict ay lii ak lii ak lii ak lii damay assumer samay xarito ak nit ñi mais candidature présidentielle 2024 man Malick Gakou mooy sama candidat. xam nga laa ko wax. nee mhm. naa gis nga ay directeur de campagne kii yii nii affaire u la dénk ko ku la neex man yow laa àndal. waa parteem nag lenn dong laa leen di wax. Mm. mooy ñu muñ te jàppale Malick Gakou nañ muñ. ndax lan ubbi seen bunt yi jàppale Malick Gakou. merci. daf ci bëri ñoo xam ni seen xol yi du ubbeeku. dañ lay siis. man kenn damaa mën a siis ci Malick man maa indi nit ñi di ñoom dañ maa ëpp ay nit. loolu laa leen doon lancé tey fii ci plateau bi ñu bàyyi ci xel ñoom waa grand parti. surtout département de Guédiawaye.